dalli nag jàmm ci xibaar yi euh, suba gi bàyyee ko fii ci Sahel Network TV Banjul Gambia Banjawaali Mbay la mu ñëw ak ci li gën a fës ci boppi xibaar yi imaam yi nga xam ne jàppoon nañ leen jamono ji nag bàyyi nañ leen bàyyi ndëgëndëku ñooñu ñuy wax drug law enforcement am na kenn ci ñoom koo xam ne daaxa nañ ko ngir tuuma giñ teg ci moom ne daf doon jëfandikoo yàmba BCC seen mayoress bi moom nag amna na ndollent goo xam mu ngi koy laaj nguur gi mbootaayi jigen bu ñuy wax Soninkara nekk foofu ca bitim réew am na ndimbal goo xam jox nañ ko pour yenn ci néew ji doole yi ki nga xam ne moo fi toogal nguuri gi wax na ne sénégalais yi nekk fii nañ dëggandiku tuuti rek ndimbal gi dina aksi bàyyi ko ci yi ak yeneen dinañ leen ko yaatalal jàngoro bi ñoo wax coronavirus dafa reye te dafa wër àdduna réewi Gambia am nañ ñu ees ñoo xam ne jàngoro bi dal na leen bul raxas sa loxo ak ndox bu tilim nanga fexe ba booy raxas sa loxo mu nekk ndox boo xam ne mu ngi daw nga àndale ko saabu te it di jonj sa loxo lu toll ci ñaar fukki seconde na ngeen ay ndaje yu mel ni ngénte ak takk na ngeen moytu di lekkandoo ci benn bool nangeen góorgóorlu ci soriwante aaral sa bopp te aar say njaboot ngir bañ jàngoro gi tasaaroo toog leen seeni kër ñu ñëw ak yéen ci yaatal ñaari imaam yi nga xam ne jàppoon nañ leen ñu doon jiite jullik juma ni ki bés bu ay bala ñu ginnaaw bàyyi nañ leen bàyyi nég ak ndeku ki nga xam ne nag moo yor kàddu polis bi ñu xamee ko ci ASP Lamine Ndiaye moom nag wax na ne ñaari imaam yi ki nga xam ne kenn la ci ñoom muy imaam Karamo Kamara nekk imaam boo xam ne mu ngi jiite ci Brikama Daasi Lami ak imaam Yusufa Kamara di jiite ci sanca Sancaba ne jamono jële ñu woon gannaaw jàppoon nañ leen ngir dañu doon jullik jumaa te joojale jullik juma ci jamono ji ñu toll nii nguur gi def ko tere woon ngir jàngoro ji nga xam ne moom limb réew mi waaye nag bàyyi nañ leen bàyyi ko ci jile jamono ñu ngi càmbar seeni mbir mbootaay bi ñoo wax drug law enforcement nga xam ne jamono ji ñoom lañ dénk wàllu drogue bi ñu koy càmbar di ci bàyyi xel lool ñu xamee leen ci DLEAG ñoom nag am na kenn ku doon liggéey ci ñoom ñu dàq ko mu ngi wuyoo ci turi Sajin Lamin Sima wax nañ ne Lamine Sima moomale ñu ñoo wax anti crime unit benn pàcc la ci takk der bi fii ci biir euh, Gambia ci police bi ne ñoo ko jàpp mu doon dugal ñeneenti saaku yi taay bàyyeekoo foofa ca tund bu ñoo wax euh, Peñem village ci nekk foofa ca West Coast Region ba tey rek ki nga xam ne moom moo yor kàddu gi euh, di Ousmane Seydiba moom nag wax na ne képp koo xam ne jàpp nañ la rek dinañ teg ci yow li nga xam ne lu la luwaa laaj ci yow ndax amul kenn koo xam ne féete na lu waa kaw mayoriste bi nga xam ne moom lañ dénk Banjul ñu xamee ko ci euh, Rohey Malick Lowe moom nag mu ngi o président Adama Barrow ne ndolleenti gi nga xam ne moom la ñuy faral di jox kansul bi muy euh, bunt bi muy liggéeyee nga xam ne moom la ñuy jël di dimbalee nguur yu ndaw ndawaan yi fii ci biir réew mi ne jotaguñ ci ba tey mu ngi gaaral kàddu yi nag gannaaw bi nga xamee ne National Disaster Management euh, seeti woon nañ ko doon def seen doxi seet bi nga xam ne doxi neme ko gi nga xam ne dañ koy def at mu ne ba doxantu si woon foofu li ca euh, place liggéeykaayam ci la gaaral kàddu yooyu ne nguur gi war nañ leen a jox ndolleent gi nga xam ne dañ leen koy faral di jox ndax ñoom it ñu mun koo delloowaat ci askan bi dimbale ñi nga xam ne jamono ji ay néew ji doole lañ rawatina ci jamono ji nga xam ne moom lañ toll muy covid 19 moom soxna euh, rugi Malick loo ba tey rek mu ne nguur gi dañu war a góorlu bu baax a baax ci dimbale leen ci jox leen xaalis bi parce que ñoom tamit dañ bëgg a jël xaalis bi yokk ci lañ am pour mun a dimbale néew ji doole ji ci jamono ji naxari ji nga xam ne ci lañ nekk. mbootaay moomu ñuy wax Soninkara di ay jigéen yoo xam ne ñu ngi ci. biir réewi Gambie yaa am ci ñoo xam ne ñu ngi nekk foofa ca réewi France ñoom nag ñoo dajale seeni am-am jënd ko ay dund ngir fas yéene dimbale yenn euh, néew ji doole ji fii ci biir réew mi ki ñu wax Moussa Kijera moom nag moom mooy joxe bagages yi nga xam ne maanaam bagages yi dund yi nga xam ne euh, mbootaay moomalee dajale nañ ko fii ci biir réew mi bu ñu seetloo nag ñiñ ko jox rek mooy ñi nga xam ne dañ néew ji doole waaye boo gisee ñu joxe ko dañ bëgg képp koo xam ne rek wax nañ ne na nga toog sa kër na nga toog sa kër ngir xeex bañ a tasaaroo jàngoro bi ñoo wax coronavirus fii ci biir réew mi ndaw li nga xam ne moo fi toggal njiiti réew bu Sénégal muy ambassadeur bi ñu xamee ko ci honorable Bassirou Sène moom nag mu ngi wax ne ndimbal li nga xam ne moom la président Macky Sall wax ne dina ko dimbalee ñi nekk bitim réew muy doomi Sénégal yi nekk bitim réew ne dina ko def ba tey rek mu ngi xamle ne président bi génnee na lu toll ci fukki billion ak ñaar ci CFA fas yéene ko dimbalee doomi sénégalais yi nekk bitim réew bu ñuy xayma nag sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réewi Gambia war nañoo toll ci juróom-ñetti téeméeri junne fii ci biir réew mi. tax na nag ki nga xam ne moom mooy ambassadeur seen moom nag yokka ne ci ne xaalis bi nga xam ne moom lañ fas yéene jox njaboot gi ne nañ ko dugal ci dund te dimbale seeni njaboot waaye buñ ko jël dugal ko ci li nga xam ne moom mooy seen business yi képp koo xam ne nag bugg ngaa bindu ba tey mu ngi yëgle ne mun ngaa jaar ci seen online bi nga bindu pour mun a am ci euh, ndimbal li le ba tey rek mu ngi continuer di wax ne xaalis bi nañu góorgóorlu ba dimbale ci mbokk yi waaye buñ ko jël dugal ko ci li nga xamante ne nii moom mooy seeni bunt yaxantu yi bete jàngoro ji jeex fii ci àdduna bi mbokk yi loolu mooy woon xibaar yi bés bi mu bàyyee ko fii ci Sahel Network TV jërë ngeen jëf ci déglu beeg seetaan bi ñu jox leen dig daje beneen yoon Pandiawali mbay